tey na ci ñoom maanaam bokk nañ si ñi nga xam ne dama leen a soupçonné maanaam ñu ne ko foo ko teg mu ne ñi nga xam ne jàpp nañu leen maanaam ci manifestation yi nga xam ne ñoom la ñu génn am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne ci la ñu bokk kaddu yi ministre Mame Mbaye Niang ma ngi ko xamle ci interview boo xam ne dox na digganteem ak Jeune Afrique ci diwaanu Paris la France ci sommet bi nga xam ne jëm na ci wàllum pacte financier moom la ñu génn ne bu leer la ne ay nit ñoo ko tegoon ngir mboolem li nga xam ne gars yi jóg nañu pour déstabiliser Sénégal pour dugal Sénégal kii pëccëxoo loolee lépp du anto ndax ñoo ngi koy lajjal dañu koy maîtriser ba tey ci biir journal bi wax na tamit lu jëm ci wàllum CPI gi nga xam ne Juan Branco yóbbu na fa yenn ci kilifa ci réew mi nee na loole lépp campagne désinformation la yàq dara ak wër di wax loo xam ne dara du ci dëgg waaye na ay sénégalais yoo xam ne dañu seetlanko ak ay lobby étranger nee na Juan Branco boo ko déggee muy wax nga xam ne xamul dara ci lu jëm ci wàllum droit international te xamul tamit fonctionnement bu CPI 2024 danañu tànn ki gën suñu ñun te ki ma jàpp ne moo gën ci ñun nekk meilleur candidat mooy Macky Sall F24 tujuñu fenn Aminata Touré Macky Sall moo tax nit ñi xam ko kàddu yi Mame Mbaye Niang la nee na Ousmane Sonko moo tooñ boppam journal bi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naan ñu bëri ay sénégalais yu nekk ca bitim réew ñoo xam ne demoon nañ ca kanamu CPI doon fa amal ay manifestation yor nañu listub ñi nga xam ne maanaam ñoo faatu ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn maanaam démb ñoom dañoo solu comme solo ñoo xam ne ay néew la ñoo di wax Macky Sall dictateur la Macron complice la maanaam foo toll ci buntu CPI dégg Macky dictateur Macron complice Macky dictateur Macron complice loolee la ñu doon way journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ginnaaw dialogue national bi tey ji ci samedi ji ginnaaw digg bëccëg gi maanaam ñoo ngi koy xaar mu yëkkati ay kàddu bu dee soppal ñu ko wula tey ji Macky Sall war naa wax ginnaaw digg bëccëg gi tey la ñu koy jébbal résultat yi nga xam ne moo tukkee ci dialogue bi waaye nag li nga xam ne moom la ñuy xaar Macky Sall mu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ma mbiri Ousmane Sonko nga xam ne mbir mu demul sengu dikkul mbay laara bëgg nañu mu wax ci ak ñeenti point yi nga xam ne déggoo amu ca yéene gi di wal fajiri xëy duñu xibaar naan ñu ñoom li ñu jàppoo mooy suba ci dimanche ji ci la Macky Sall yi wax waaye nag la Macky Sall yi wax boo ci yokkee nag ñi nga xam ne ay farandoy Ousmane Sonko lañu bëgg dem si dëkkër góor gi boo muy tuulee pëcc xoo naa am ci réew ñi nga xam ne nag ñooy waa plateforme F24 ñoom tim dañu doon def seenub dialogue tuddee mooy troisième candidature Macky dina dellu si ci Macky Sall ni nga xam ne moom lay créer maanaam ay monstre ay adversaire Macky Sall ay adversaire moom moo koy créer moo leen di fabriquer xoolal ma mbiri Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna yokk ci Juan Branco journal bi de la sa xëy duñu xibaar naan ñu M23 démb la woon anniversaire bi waaye la ñu doon xeex ba léegi ma ngi ci réew mi yéen kaay gi de la ñu xëy fekk fa Cissé Kandaw nee na projet bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko ñi mu àndal ne am na ay lesuuxu la ndax ñoom ci lu la ñuy yëngutoo pare bëgg a dàq lépp loo xam ne jëm na ci doxinu lislaam ci Sénégal gëm-gëm yi la bëgg a soppar ñi Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoom la àndale li ñu bëgg ab régime théocratique université Cheikh Anta Diop ak Gaston Berger bi nga xam ne archivé dañu ko tàll loolee lu ñu planifié la projet bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yore projet de révolution sociétale te loolee baaxul ci réew mi kàddu yi si kan ndaw la yéen gi de la turbine xëy duñu ñu collectif des cadres koo ber ci lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi te naa am ay conséquences de frustration journal bi de Le Quotidien nee na Casamance jamono ji maanaam Ziguinchor amuñu ay xar xar ya xam ne moom la ñu fa jot a gis cher na ba jéggi dayoo laas yéen a kay nee na de Ziguinchor rek bëri na ci réew mi foo xam ne xar yi ba pare xar yi na loola yéen a kay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu tëbaski ren gi nar naa gën lu si ñenn ñi waaye mooy feet boo xam ne bu ñëwee saa su nekk na ñoo xam ne dañ siy am ay jafe-jafe bëri na ñoo xam ne ci seen biir néegu sëy dafay yëngoo am na sax ay sëy yoo xam ne li koy teree tas ngir tabaski gi bëriwul surnal bi di Direct sa laaj ku ñuy wax Moussa Diop Moussa Diop nee na ginnaaw bi ko soxnaam jëndloo xar mi ba pare da koo jëndloo li nga xam ne mooy ab tissu boo xam ne bu cher la ak ay takkaay yokk si nag dépense bi te nag loolee su ko deful caaf xëm làmbaay ñaawa moo Moussa Diop yokk na si nee na jabar ji sax nee na ko changé li nga xam ne mooy meuble salon bi madame Diop moom tim nee na ci lu jëm ci wàllum tabaski gi maanaam ba ñu ci sax sëy bu tas ndax nee na li muy sàkko mooy xar moo xam ne xar mu rëy lay doona